amul barab yi nga xamante ne nag kenn war faa dëkk li am moo di barab yi nga xamante ne nag mbënd mi dalaa nar sonal te ñu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent jëwriñ ji lu leer nañ la daa di bëgg te bokk na ci ñaar fukk ak juróom gox gi nga xamante ne ndox mën na leen sonal Dakar Tiwaawoon Joal ci la ñu bokk coppite jaww ji waral nag yàqu-yàqu yu bari ñu koy nemmeeku eh, saa yu nawet ñëwee ngir noppal askan wi nag jëwriñ yi eh, daal di eh, tëral lu yees. solo daje bi. moo doon dafa am liggéey bu am solo boo xam ne bii suñu réew daf koo def muy benn projet boo xam ne bii li ko tax a jóg mooy ñu xam saytu fan la mënd mën a am ci Sénégal. bile jumtukaay bu bees nag ndaxam niñ ko yaakaaree noonu la mel. ce résultat peut être utilisé par tous les services de l'État. on a pu créer defar nañu ay jumtukaay yu mucc ayib ya nga xam ne ni danañ ca mën a saytu ci dëkk dëkkaan yu nekk biir Sénégal bërëb ya mën a am ay jafe-jafe mbënd mi. fii ci Ndakaaru daanaka genn wàll million ñi fi yeewoo mbënd mi da leen daal di sonal wante nag ak lu yees li ñu jëmmal maanaam MTN lu bari mën na cee soppeeku. képp koo xam ne kii bëgg ngaa jënd kër wala da bëgg nga dem ci lotissement wala maire bu bëgg a def lotissement da nga ko xool ne su amee taw boo xam ne bii fanweeri at yu nekk lay ñëw nan lay demee yan mooy inondé wala déet liggéey bi nag projet bu mag la bu ministère bi def boo xam ne bii fukki milliards la liggéey bi yëpp parce que am na ci benn radar boo xam ne bi dañ ko def jam ñaajo ñuy waajal jëmmal lu yees daal di koy awal ci xarala yi ngir rek kuy wër dëkkukaay daal di ciy dugg xool ndaxam dina taa am déet ndaje bi ñu amaloon nag nekk porox ndoll ci njiit yi ñu daal di fësal seen phase bu njëkk bi ñu amal soxal projet bi nga xamante ni nag moom mooy xeex mbënd mi fii ci Sénégal